yàlla xëy garage euh, Kër Massar moo nekk nii donc grève bi c'était c'est bien respecté la bi ñu ngi ñii gisuñu oto voilà li ma xew tey fii ci Kër Massar oto yëpp taxaw nañu voilà asalaamaaleykum sëñ bi euh, nga présenté wu. Mbacke Aw chef de garage Kër Massar. Mbacke Aw chef de garage Kër Massar. waaw euh, seen garage bi suba depuis ci fajar euh, population bi wala ba client yi ñu ngi taxaw di xaar oto yéen ñëpp ngeen gaare seen oto yi lan moo ko waral. waaw yi dañoo geraw bu tegu ci yenn ponk. comme li ma la waxoon rek li tegu ci ñun maanaam li ñu teg lépp lu ñu àttanul benn doomu aadama nga xëy xëy tegal ko andil ko ñaar fukki ak ak ñaar ah nga ko ci benn bopp àttanu ko moo tax mu taxaw loolu rek la demee. mais est-ce que ngi waxtaan ak nguur gi pour que ponk yi ñu leen teg ngeen xool ni ngeen koy négocier ba kenn ko ne gis sa bopp. déet ñoom kay ñoom ñu ngi xool ba xam ne kilifa yaa ñoo cay waxtaan. léegi seen grève bi teel a tàmbali kañ la war a jeex. ah xamuñu ko kilifa yi daal ñoo ko xam heure bu ko jeexalee rek ñu ngi jeexal. kilifa yi mooy ñi ngi xam ne ñoo leen teewal ci euh, syndicat yi. nekk ak nguur gi. ñoo ñooy kilifa yi. te déggaatu leen ñoom ci ba grève illimité bi. maanaam maanaam ci point yi ngeen di war a waxtaan bu fekkee ne am ngeen ci as tuut boog da ngeen teggi seen loxo. ah waaw incha allah ñun koy bu ñu waxtaanee nii parce que lii lépp maanaam euh, ci loraange lay doon loraange askan nag ñun taxu ñoo jóg ñun dañu ñun li ñu tax a jóg mooy jàppale askan bi. est que génn nga doxoon ci tali bi gis nga mbooloo mi ni mu toll. gis naa ko de. bi sa yar sa yaram dawul ci loolu. sama yaram daw na ci waaye nag état bi ci boppam lépp moo ko def parce que lii ñu teg yéen ci ngeen bokk. yéen ci ngeen bokk parce que oto bi bu dee day dem tey jii nga yor sa bagage ana màggalu Tuubaa ana gàmmu Tuubaa nu ñuy defa suñu bagage yi waaw démb démb nag ministre bi nee na bu loolu jotee bu màggal jotee wala bu gàmmu jotee am na ay mesures exceptionnelles yoo xam dañu leen ko may ngeen yëpp ay bagage mesures yi kay nañ ko jël léegi ñoo xam lan la buñ ci àggee ñoo xam ni ñuy doxale baax na jërëjëf euh, sëñ bi aaw ñu ngi lay sant di la gërëm jërëjëf merci beaucoup ah